Euh, man maa di Serigne Fallou Fall maire de la commune de Ndiéyène Sirakh et ambassadeur utinerant à la présidence de la République noo ngi gërëm euh, le préfet du départ de de la région de Thiès ak ñi mu àndal muy euh, le gouverneur de la région de Thiès la ñuy gërëm ak ñi mu àndal muy le préfet ak sous-préfet yi ak chef de service régionaux yi Euh, kontaan nañu ci tournée économique bi nga xam ne moom la def si ci Ndiéyène Sirah te mu def ko nag ci waxtoom ñëw visiter ferme yi nga xam ne moo nekk Ndiéyène sarax te ferme bii nu nekk nekk ci benn visiter it poste de santé bi nga xam ne benn doomu Ndiéyène sarax bu bëgg Ndiéyène sarax di premier adjoint maire moo ko tabax dimbalee ko état wu Sénégal ci wàllu santé Euh, fii ci Ndiéyène Sarax nag dañu am benn wale bu fi jaaroon bu ñuy tudde wale Karkar wale boobu boo gasee cinq cinq mètres wala six mètres da ngay am ndox moo tax population yi ñi ngi koy exploiter def fi tool bu mel nii ak tool yu ko gën a rëy euh, monsieur l'adjoint maire moom itam def fi nag ñaari ferme wala ñetti ferme yu mag yoo xam ne li mu ci jublu mooy carrière d'emploi mooy population Ndiéyène Sarax am fu ñuy mën a xëyee loolu nag alhamdulilah yàlla jàpp na ci ba fii mu nekk nii lu mu bon bon bu xëyee deux cent personnes dina xëy ci ferme yooyu ngir di ci liggéey euh, noo ngi yaakaar nag ne monsieur le gouverneur dana jàpp ci chef de service régionaux yi pour ñu jàppale commune Ndiéyène Sarax ci intrant yi yi ñuy subventionné ak yi ñuy jaay ba lu ñu ci soxla mën ko jot niki noonu it pisciculture noonu la développé ci commune bi tool a ngi fii ci kanam boo xam ne ñaari bassin mi ngi fii yoo xam ne dañu ciy def pisciculture euh, ferme yi nga xam ne moom la ñu ci visité ci suba itam dañu fay def pisciculture niki noonu it élevage lu yaatu la ci commune bi ñi ngi koy def bu baax a baax loolu itam gis naa fi léegi chef de service régionale bu élevage ñoo ngi yaakaar ne li munu daan dimbalee dana ko yokk ci wàllu bétail bi pour jur gi mën a am lu ñu lekk noo ngi gërëm ñëpp noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm la presse bi ànd ak délégation bi ñoo ngi gërëm population yi nga xam ne ñoo jóg àndandoo ak nun ci visite bi noo ngi ñaan yàlla visite bi am résultat boo xam ne dana kaw suñ njort wasalaamaaleykum wa rahmatullah di gërëm monsieur le gouverneur de la région de Thiès ak préfet département ak sous-préfet yi mu àndal yëpp ak service régionaux yi mu àndal yëpp ñëw ci commune de Ndiéyène Sarax ginnaaw bu mu defee liggéey bu rafet bi nga xam ne ñun li ñu gënal mooy habité wu Ndiéyène Sarax ak doomu Ndiéyène Sarax am liggéey bu rafet boo xam ne bii ñu ngi koy def lii yëpp ay xale ñoo koy def ñu doon ñaan góornóor nag mu def tournée économique pour xool lii ndax xale yi ñu ngi lu mais amuñu benn jàppale ci état ni subvention comme nu ko maire waxee man promoteur agriculture defe naa mooy sama professionnel bi may gën di liggéey defe naa fi ñett fermi ba ñeent yoo xam ne maa ngi ci créer emploi te li ma bugg jublu mooy sénégalais yépp xool yoon boobu ndax xale yi am fu ñu jàpp moo gën ñuy jël gaal gi parce que vraiment ñun suñu xëyee dinañu employé comme ni ko maire waxee plus de deux cent personnes te bu ñëpp defee noonu yaakaar naa ni xale yi dinañu toog ci dëkk bi moo tax ñuy ñaan état jàppale xale yi dëkk xale bi xale yi nag fii ci réew mi day ci tund wi ay gor ak jàmbaar ñoo fi nekk loolu nag bëgg nañu état bàyyi leen xel bu baax a baax a baax tonton ñun ñu ngi ciy góorgóorlu waaye suñu loxo def ci tuuti am nañu yéene nag suñu amoon suñu doon suñu yéene tey dëkk bi yëpp mel ni Paris. état yow sa man li may xaar ci état moom ndimbalu état moom defe naa ne li ëpp solo. mooy jàppale askan wi bañ leen a may parce que may du dimbali nit man lu ma jàpp ci état yi li ñuy def d'accord ma ci may ñun dañu bëgg ku ñu dimbali ñu liggéey parce que nit ki nga may ko jën jàngal ko nu muy nappee jën moo gën chaque jour nga may ko jën te fii ay jàmbar mu fa état nag lu ñuy xaar ci moom mooy jàppale mais du ñu toog rek di xaar état nag ñun ñoo ngi ci dañoo bëgg nag état fekk si mais ñun moom xaaruñu état ñoo ngi jàpp 100 pour cent kon lu ñu gënal état ñëw renforcer ñu pour ñu mën a yeggale liggéey bi ñu bëgg yi ñu yéenee ci tund wi yi ñu yéene ci Sénégal nit ñi di lekk li ñuy bay parce que mënuñu chaque année ñu jël ay milliards di ko génne bitim réew nan danoo bëgg koom-koom Sénégal dafa manqué xaalis Sénégal day manqué xaalis parce que day importer meew day importer soble day importer tomate day importer soble lépp daf koy importer sa xaalis di def def devise chaque année sa xaalis day génn devise naka la senegal di émergent il faut ñu toog ci àll bi bay boo bëggee émergent da ngay def agriculture élevage hmm? xale yi am lu ñu jàpp ki jàng dina liggéey agriculture ki jàngul dina liggéey mais mënoo nekk rek ay biro ñu bëgg fi nekk naan biro bureau toog ci taabal yi te lay wax vraiment dafa doy nañu fekk si xale yi jàppale leen ci àll bi ñu liggéey ñun loolu la ñuy sàkku ci état asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu Modou Thiaw mooy premier adjoint maire de Ndiéyène Sirakh ensuite di wax mbégte bi ñu am ci jeexal tournée économique bi nga xam ne tey gouverneur ak CRD bu Thiès dañ ko doon def ci zone horticole bu département de Thiès ñu wër nag tey ay euh, ferme mais également ay exploitation agricole am ci mbégte bu rëy déjà première exploitation bi ci vingt cinq hectares de pomme de terre euh, producteur disons promoteur bi mi ngi ci récolte cinq cent tonnes de pomme de terre ci vingt cinq hectares yi ñu ko newaat dem ci beneen exploitation agricole boo xam ne boobu soble la fa def dix hectares à raison de quinze tonnes à l'hectare pour en tout cas jàppale suñu réew ci wàllu fourniture bien yooyu maanaam lu mel ni pomme de terre lu mel ni oignon ak yeneen ak yeneen te nga xam ne askan wi soxla na la ko soxla na ko di leen wax it bu soobee yàlla dinañ leen accompagner lii tàmbali la mais fépp foo xam ne nit woo nañu dinañu déplacé wu bu ñu ñëwee ñun saafara yi ñu mun a indi ñu indi ko yi nga xam ne dafa weesu suñuy capacité ñu waxtaan ci ak kilifa yi nga xam ne donc ñoom ñoo nekk au niveau gouvernemental pour accompagner secteur agricole bi et plus particulièrement su secteur orticole bi. maa ngi aussi rafetlu yéen ñëpp gis ngeen ko euh, le nombre d'emplois yi ñu fekk ci exploitation agricole yi première bi emplois ci 120 emplois yi 80 yi ay jigéen lañu 40 yi ay jeunes lañu. deuxième ferme bi nga xam ne euh, exploitation bi 50 emplois 40 yi jigéen et également di si ay xale et ensuite promoteur bi nee na ma que bu ñu demee ba yegg ci phase de récolte intensive mun na dem ba 200 emplois yi muy jël jigéen ñi ñoo ma ko seedeel seede ko seen kanam te defe naa loolu euh, jéego la ci wàllu. en tout cas politique d'emploi bi nga xam ne état bi daf ko teg en place ñu également vraiment euh, rafetlu euh, initiative yi nga xam ne euh, Modou Thiaw nga xam ne moom mooy promoteur bi jël na ko pour jàppale véritablement jeunes yi mun leen fixer fii jox leen seen teranga fii ba pare yokk suñu koom-koom donc loolu moo motivé monsieur le maire déplacement gouverneur ak équipe de développement de la région tey à l'intérieur du département de Thiès balaa ñoo terminer aussi indi nañ ma won ma loo xam ne promoteur bi daf ko def defal ko dëkkam te mu tudd Mbewaan di la ne bu ñëpp ñi munoon euh, li nga def euh, buñ ko defoon soo watul en tout cas poids bi tegu ci état bi dina wàññeeku te réew ñëpp ñoo koy tabax état mi ngi def jéego yi mu man mais également ay opérateurs yu mel ni nga xam ne fàttewuñu seen terroir fàttewuñu seen dëkk mat nañu ñu wone leen véritablement en exemple. pour jeexal euh, aussi donte kontaan naa ci li ma gis mais producteurs yi ak acteur secteur horticole bi yeggal nañ ci man ay requêtes ak ay doléances requête bi ci gën a taxaw ci ñoom ñëpp. mooy nañ leen jàppale na leen état taxaw pour ñu am ay chambre froide chambre froide yi dafa am solo man nangu naa ko parce que déjà li ma gis ci récolte tey 500 tonnes de pommes de terre c'est pas évident que mu mun ko écouler ci délai bu gàtt donc il faut mu am chambre froide nga xam ne mun na ko fa denc di ko écouler progressivement investissement yi mu mun a def mu mun ci en tout cas amaat dara donc loolu bu soobee yàlla suñu delloo Thiès ba début de semaine dinañu jokkoo ak monsieur le ministre de l' agriculture yeggal ko seen plaidoyer boobu yeggal ko seen bëgg-bëgg boobu. ñu teg ci aussi que aujourd'hui ñun ñëpp dañoo bëgg suñu réew mais bi ma terminé tournée bi dafa am xalaat boo xam ne dafa fixé wu man ci sama bopp. fu ma dem ma gis. ay résultat yoo xam ne ñëpp mën nañ teg seen bët donc est-ce que jotul que ministère de l'agriculture ak ñun ñi ñi nga xam ne dañ ko war a remonter lii xew ci en tout cas au niveau territorial ñu engager la reflexion man de lépp loo xam ne dafa jëm ci communautaire vraiment ji suma ci ndam fépp fi ma jaar ma wax ko ci kaw nag. te sama réew rek moo may tax wax leneen taxuma wax par contre région yi ma def yëpp initiative individuelle yi résultat yu mel nii la ñu joxe donc nañu xool naka la ñuy gën a doolalee les promoteurs individuels en matière agricole et dans tous les domaines d'ailleurs parce que initiative bii individuelle kiy def alalam déjà d'abord du ko caaxaane nombre d'emplois yi mu créer benn ferme communautaire du ko créer cent vingt plus cinquante plus quarante te nit ñi huit heures ñu xëy liggéey fa ba heure bi ñuy wàcc mais il nous faut regarder la réalité en face moi j'ai le courage d'assumer mes idées de moins en moins je suis intéressé par les projets communautaires de plus en plus je suis intéressé et marqué positivement par les initiatives individuelles maa ngi leen di gërëm di leen sant